maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokk yi ñuy seetaan ci GMT TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar tey jii nag ku ne xam na ne mooy bisub le 29 di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor wi dajeeg bis bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma euh, ci la ñuy tëj liggéey bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci koor gi tàmbalee ba léegi di def ay bernde yoo xam ne bernde yi ruu la waaye bernde yoo xamante ne bi bernde yaram la muy ay ndogu Euh, tey jii nag ñu invité woon ci euh, daayira Mafatihul Bichri Mafatihul Bichri ku ne xam na seen yëngu ci njàngum xasida ak tasaare euh, li nga xamante ne bi mooy njàngalem sëñ bi ci mbooleem dëkk bi ak mbooleem réew mi tey jii nag ñu ànd ak ñoom invité woon leen ci ndogu yi ngir ñu ñëw ku ne xam na ne làcc wi Eh, wu yaatu la woo xamante ne wi kenn ku nekk dangay nekk fenn rek waa daayira Muxaddamatul Xidma nekkal leen ci jumaa ji ñoom itam ñu nekkal ñu ci xasida yi kon lépp benn la lépp benn la kenn ku ne da ngay nekk fenn rek looloo taxoon ñu woo leen ci bis bi ngir ñu ñëw seere liggéey bi gis liggéey bi itam kon maa ngi ànd ak sëriñ Cheikh Fall Serigne Cheikh Fall moo jiite Mafatihul bisir bu Touba kon ñu jox ko kàddu gi rek mu wax euh, gis-gis yi nga xam ne euh, gis na ko fii ci jumaa ji ak invitation bi nga xamante ne bi waa daayira Moukhaddamatoul Khidma invité na leen ko ci tëjtal euh, ndogu yi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi Sëñ Touba. sëñ ñuy nuyoo bu baax a baax di ziar bu baax. di rafetlu bu baax ci laaj yu am solo yooyu euh, di sant bu baax ci teewaay bi ñu teew tey fii ci jumaay Touba euh, di nuyu bu baax di ziare Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou xalifa général mu murit di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di tënk kàddu yi rek ndax dafa mel ne ñi war a wax bari na lool. Euh, jataay bii di jataay bu am solo di jataay diine yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund diine xam nga ne lii lu am solo la ci weeru koor. ma Muxaddamatul Xidma di ko taxawu fii ci jumaay Touba di bërëb bi nga xam ne moom moo gënal sëriñ bi ci kaw suuf ñu koy taxaw taxawaay bu rafet bu am solo diirub fanweeri fan ñu ànd koog mbokki taalib di ko taxaw tey jii bi ñu demee ba xam ne war nañoo tëj liggéey bi euh, waa Daara Mafaatul Bisri ñëw fii ci turu jëwriñ sëriñ Xaarim Joom Nay mi nga xam ne moo jiite liggéey bi yëpp ak euh, ñun ñii féete Touba mu yebal fi délégation ngir ñu ñëw ànd ma Muxaddamatul Xidma liggéey bi muy liggéey boo xam ne mbokki taalibe yëpp mën nañoo ne ñëpp ñu ngi koy rafet rafetlu ndax lu am solo la lool loo xam ne fii ci réew mi ba ci bitim réew kenn ku ne yaa ngi koy rafetlu di ko bàyyi xel di ñaanal bu baax a baax a baax a baax waa Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxaw suñu borom kàttanal leen ba fépp fu ñu bëgg mu àgg fa mu àgg fu kawe seen jort di ñaanal tamit ki nga xam ne moo fi nekk muy mun Mountakha suñu borom yàggal ko fi ndax lépp mooma di wax ne comme ni nga ko waxee sa kaw yi kàddu rek mooy liggéey Serigne moom tool bi daa yaatu kenn ku ne da ngay nekk fii kii nekk fii kii nekk fii waaye lépp benn la day mel ne dañuy xëyee ci kër gi ñun ñëpp dem ci tool bi rek waaye suñ wàccee ñun ñëpp ci kër gi lañ la ñuy dajawaat moo tax kon lii wane na ko tey mel ne ne délégation yi bari na daayira yi bari na kilifa yi diine yi bari na ñëpp ñu fi teew kenn ku ne bari na lool kon loolu day wane na liggéey sëriñ moom amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ku dikk ba gis liggéey bii da nga xam ne sëriñ Touba moom euh, lépp lu ko yàlla euh, digoon jox na ko ko te fii ci dëkk bi la ko joxe mbooleem nag mbokki taalibe yi fi nekk yëpp ci teeru gi ak dalal gi ak bàyyi xel gi bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla am na solo lool waaye incha allah rabbi ñi ngi eh, ñaan sëriñ bi fekkeel ñu ko ay déwéni déwéni déwén déwén ñu yàgg ko ànd ca kenn ku ne lépp liñ ci dàkk diir ko di ko diir ci sëriñ bi sun borom may la nga jam ko ndigam soom na yàlla si sëriñ mooy li am solo liggéey bi moom eh, benn la kenn ku nekk da ngay nekk fenn rek di bàyyi ci waar wi bu ñu wàccee ñu dajewaat ndax lépp yëfi sëñ bi na kon ñoo ngi leen daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi leen di sant bu baax a baax euh, li tàmbalee ci sëriñ mi nga xam ne moo jiita liggéey bi ak sëriñ Abdou Lahad Bousso ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo bokk ci daayira bi euh, la tàmbalee ci kaw ba ci suuf amal nañ leen ak njukkal ñoo ngi leen sant bu baax ci liggéey bi euh, di leen xamal ne Euh, liggéey bi moom mi ngi nii ñu ngi ñu ngi leen ci tàllal loxo euh, di leen ci woo itam lu ngeen ci gis loo xamante ne bi xëy na lu jar a jubbanti la wala loo xamante ne bi jar na joxe xalaat bu ko defee ñu ngi ciy déglu seen i xalaat di ci déglu seen lépp daal daayira bi daal ubbi na ay buntam ubbil na ñëpp ay buntam ñu leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullah